pour war leen a jox seen financement duguleet def nga xam ne moom mooy mbébétu askan yi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne xool même bu fekkente ne munuñ ko tamit instant loolu dafa bokk ci jaamu yàlla ba ne man balaa maa tàmbali aw ma leen lu Koungheul aw ma leen lu sama département aw ma kooku nag mooy kan muy Alioune Badara Ly di ñaan ngeen tàcc ñu ko bu baax a ñu def euh, fii ci Bamba Modou Coura loolu am na solo di jee mais bu ñu gàllaay xam yéen groupement yi defee yéen ci seen biir di ngeen xool nan ngeen war a mën a xool ci seen biir nan ngeen di organiser wu pour mën a jàppalante mën yoo xam ne di ngeen ci war mën a jàngee investissement mais di ngeen ci mën a jàngee aussi tamit doxalal sa bopp parce que li nga xam ne moom la ñuy viser du lenn lu li ñuy wax autonomisation parce que jigéenu léegi dañoo war a fexe ba jàppale ko ngir mu mën a demal boppam jigéen war naa mën a am moyen boppam ngir mën a xam fan lay jaar ngir mën a soppaliku ndax bu fekkente ne lépp dañ koo wéer ci mbaggu borom kër gi di ku góor gi mbir mi day xaw a métti lool mais fa ñu xamee ne jigéen euh, nekk na ci biir askan dinañ sonn lool ñu ne kon ñun bu ñuy suqali bu ñuy jàppale dañuy xuus dugg ci biir askan wi waaye suñu cible kan la mooy jigéen ñi. loolu nag vraiment Alioune Badara Ly ba mu ko yëgee mu ngi ci def ay jéego yu am solo ba mu leen taxawalee ay récépissé utal leen lu mat presque juróom fukki récépissé ak lu teg yoo xam ne taxawal na ko ci biir département Koungheul loolu lépp ngir mën a fexe ngeen légal mën a bénéficier wu ci ay projet àgg ci loolu ñuy wax autonomisation. kon ci loolu rek mbokk yi ak xarit yi euh, loolu mooy li nga xam ne tey moom moo ñu fi indi délégation bi agsi na léegi une très forte délégation Alioune Badara dafa am mais moom mu nekk mu ñàkk ne. am na ñu ko fi nekkal ñoo xam ne saa su ne rek ñu ngi fexe di wéyal li nga xam ne moom mooy liggéeyam délégation bi agsi nañ léegi ci noonu ñu ngi ciy ràññee ki nga xam ne mooy Majaw Mbeng yaakaar naa majoo moom ñëpp xam nañ ko fi mu nekk nii foofu nañu leen ana Majaw ana Majaw ana Majaw lépp pratiquement moom lañ ko dénk parce que moom mooy suñu coordonnateur moom lañ ko dénk mu di ko wéyal di ko wéyal nag ci nu gën a sellee di déglu askan bi saa su ne message buñ ko mën a jox bu ne mu yeggee ko Alioune Badara li te Alioune Badara tey nag li nga xam ne moo ñu fi indi tey jii am nañ juróom-ñetti groupement yoo xam ne tey dinañ leen jox seen financement juróom-ñetti groupement dinañ leen jox tey fii ñu toog seen i financement enveloppe yaa ngi nii tege balaa ñu fee jugee ku ci nekk nañ la jox sa financement nga yóbbaale ko à hauteur de cent mille francs ginnaaw bañ leen defalee aussi tamit seen i récépissé loolu buñ ko fàttee loolu boo ko xoolee kon dina nekk montant boo xam ne montant bu takku lay doon mais aussi am na ay dons léegi ngeen gis ci bokk na ci li nga xam ne indiwaale nañ ko ñu jagleel ko sëñ daara yi yenn kilifa yi mu nekk ay bassin ak leneen loo xam ne tamit luñ teg ci kawam la première dame Mariam Faye Sall di jàppale son excellence monsieur Macky Sall moo ko jàppale Aliou Badara li mu jox ko ko mais ba mu ko ko joxee ñu ne ginnaaw noonu la aussi te ñun dañuy dem ci askan wi danañ fexe mu àgg ci askan wi ñun duñ ko denc ndax loolu alalu askan wi la. donc di ñaan bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a a Euh, loolu ñuy wax euh, mu ne dafa bëgg li ñuy wax autonomisation des femmes am ñu fexe ba ci gox-goxaan yi ñu regroupé li nga xam ne mooy jigéen ñi euh, utal leen ay récépissé récépissé bu ci nekk rek ñu frais ci cent mille francs muy ñaar fukki junne waaye ba mu jugee foofu tamit nee na jigéen ñooñu nga xam ne ay taxawal nañ seen i groupement am seen i récépissé dinañ leen jox seen i financement financement yi mooy que ne tey ñëw nañ ci Bamba Modou Koura tey fekk bi lu mat juróom-ñetti groupement te groupement bu ci nekk tey dinañ la jox ñaar fukki junne nga yóbbuwaale ginnaaw nag ba demee ci yeneen i quartier encore ndax am na quartier yu bëri yoo xam ne bu ñu demee Koungheul Santhie dem nañ ci juróom-benn groupement boo demee Koungheul Mali juróom-ñaari groupement boo ñëwee jàmm gën gi encore nañu ba ci fukki groupement ak benn te yaakaar naa foo mën a dugg ci biir Koungheul tey jii nii mu ngi koy dugg di fa teg tànkam vraiment di jàppale ñooñu nga xam ne mais en dehors de cela aussi di ne dëkk bi ñuy wax Mbineel bokk ci département Koungheul aussi nekkoon nañ ci jafe-jafe yi tar lool mu metti woon lool vraiment euh, ñu jàmmatoon ko Alioune Badara lii waxoon ko ne ko ñu ne ñu jàppale woon ba ñu mën a fexe ba mën a àgg ci ndox parce que ñëpp xam nañ ne ndox dafa nekk loo xam ne ku ko ñàkk ku ne rek yaakaar naa sa dundin wala sa jàmm yàlla lu bari da ciy manqué. ci noonu kon Alioune Badara tey jii nii jagleel na leen enveloppe 500000 francs di ñaan ngeen tàjju loolu bu a baax muy waa Mbineel enveloppe bu 500000 francs moom la leen war a jagleel ki ñu wax Omar Sall moom mooy ndaw li nga xam ne tey yebal nañ ko ngir ñu war ko mën a jox enveloppe ba mu dem jox waa Minal ngir ñu mën a fexe daar daar ñooñu mën a àgg ci ndox mi parce que tamit loolu dafa nekk jafe-jafe boo xam ne def tàll waaye mbokk yi ak xarit yi comme ni ma ko waxee léegi léegi rek Alioune Badara def ne man du ma fexe na ba jege la première dame di soxna sa Mariam soxna sa monsieur Macky Sall son excellence muy Mariam Faye Sall dem ko wax ko diis ko loo xam ne ay soxla la vraiment pour askanu Koungheul ci loolu mu jox ko ay don ne ko pour le moment dina am loo xam dinaa la ko joxaale nga yóbbuwaale waaye nag bu yéen jeexul waa xosil du mu sa jeex mu ne ko yóbbuwaaleel lii boo ñëwaatee mu gën fee neex dinaa la dolli leneen mu jox ko lii nga xam ne tamit di ay bassin ak leneen loo xam ne jox na ko ko ñu war koo jox sëñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew kon ñoom seen teewaay du teewaay yi ñëw toog rek waaye dafa am loo xam ne seen boo xam ne ay Badara li jox na ko li nga xam ne mooy délégation bi nga xam ne ñëw na ñu jox leen ko lii nag du lii rek waaye dinañ leen nañ leen ko wan ngeen gis ko waaye nag loobu bëri la tey buñ ko tegoon fii tey ci piste bi yaakaar naa kenn du am koo mën a jaar bëri na lool bagage baa ngi fii indi nañ ko mu ngi fii ci suñu biir indiwaale nañ ko euh, ci loolu ñu fàtte aussi fu mel ni commune Lour Escale ndax tolloo nañ benn instant boo xam ne ñu ne ñoom dañoo bëg a fexe ba clôturer li nga xam ne mooy seen armeel yi ndax nañ ne moom mooy kër gu mujj te yàgg-yàgg fa la ñuy mujj yàlla yéex waaye ñoom ñu ne dañoo bëgg a fexe ba sécuriser ko dañoo fexe ba bëgg koo miiree keroog bañ ne salaamaaleykum Lour Escale keroog lañ ko jàmbat Aliou Badara lii keroog bañ ko ko waxee la leen tontu mu jagleel leen li nga xam ne mooy sept tonnes ciment mu war leen ko jox muy waa Lour Escale di ñaan ñu tàcc loolu bu baax a baax. moo koy ak xarit euh, yaakaar naa lii di ay réew ñëwagul ndax cin bu naree neex bu ba loolu dëgg la. lii yaakaar naa bu amee ci boobu rek nekk na li réer boo xam ne askan war nañ ko mën a bàyyi xel waaye nag dinañ leen wax loo xam ne ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. léegi tey buuxante taxaw ñun nag laata buuxante taxaw ñun fekk na ñun taxaw nañ bu yàgg ñun ñun taxaw tooguñ di xaar nan campagne jot nañ leen dem ci askan wi. politique taxawul campagne taxawul bëgg a falu taxawul. ñun dañoo xool ne askan wi soxla na ko ñu ne nan dem jege askan wi balaa leen di am bu ëllëgee lépp lu ñu mën a jox lu ne rek bu ñaan lay doon waaye fekk na ñun def nañ li nga xam ne mooy suñ devoir kon yéen mbokk yi ak a xam ki nga xam ne dafa nekk ci dëgg ki leen yëg ak ki nga xam ne daf leen di ki nga ne daf di ki nga ne daf leen di ex daf leen di exploité ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax a ndax Alioune Badara bu fekkonte ne leaderu naxe buy naxe la wala leader boo xam ne kat. day ñëw di xool li nga xam ne mooy intérêt am kese yaakaar naa dana doon xaar ba élection jot muy soog a ñëw waaye moom dugg na ci làng gi laata lenn di ñëw loolu nag yaakaar naa mérité na kon ñun askan wi ñu jàppale ko bu baax a baax bu ñu kenn nax bu ñu kenn nax loolu nañ ci bàyyi xel bu a baax loolu dama leen koy dénk yéen waa Bamba li nga xam ne moom mooy bagage bi nga xam ne moom lañ fi teg di leen wax ne lii dañ leen indi wan leen waaye lii li nga xam ne moom lañ indi tey bagage bu takkoo takku la waaye mënuñoo jël lépp ñëw indi ko fi ndax tamit dañ ko war a yóbbu ci ay dañ ko war a jox ay sëñ daara ay sëñ daara war koo yóbbu ci béréb yu bëree bari mais danañ ne dinañ am luñ ci jël ñëw tegal leen ko fii ngeen gis mu bokk ci li nga xam ne mooy li ñu indi kon sëñ daara.

bisimilah rek bisimilah soxna ma wut quoi tey buñ dee tey buñ dee ñu ngi laa ñaanal man su ma wax si dugg yëpp su may kale lañ kon nag xam nga ma wax ma la ñaanal rek lu ngeen bugg yal na leen ko yàlla fay ñun ñëpp ñu wax ci Fatou Seye lépp lu ñu dégg bëgg nekk yal na ko yàlla musal ca kan doog parce que seen maama ci doom yal na yàlla mari li bugg te Ali Badara ci kanam ci kanam kànga mag kànga bu ne kànga bu amul kànga bu amul kon nag Ali Badara maa ngi lay ñaanal yal na yàlla may jàmm yal na yàlla la ko càkk parce que seen dinaa ma xam ne parce que seen maama ci. ñu daa ko di ñëw waaw waaw.